waaw atelier bi li ko indi mooy euh, dafa am benn document boo xam ne mooy bu mag bi plan développement territorial ñu validé ko janvier 2020 par le président de la république Nous avons ci une ci loi loi d'orientation boo xam ne sur le plan juridique ci biir loi bi ak ci biir plan bi dafa am de planification yoo xam ne permettre plan bu mag bi ñu wàcce ko ci muy schéma communal d'aménagement et développement territorial tey nag PNUD daf ñu jàppale ndax PNUD dafa am commune yoo xam ne daf leen di jàppale doom Morolan mu jël plan bi ñëw ne dañ koy def biir Morolan euh, ñu euh, dénk ko cabinet bu tudd MSA muy cabinet d'étude boo xam ñëpp xam nañ ko léegi euh, ñu def bilan diagnostique maanaam ñu ñëw xool gox goxaan ni ñu tëddee def seen enquête léegi ñu

Euh, ensuite euh, boo xoolee document bi fii lañ ko njëkk a def te gis nañ ne buñ koy def fële exemple bii la ñuy joxe te bu boobaa tamit ñi nga xam ne ñoo ci yëngu dañ leen dañ mën a ñëw joxe seen exemple maanaam yoon ya ñuy jaar ba nga xam ne document bi jaar na yoon donc loolu tamit ñu waroon ko wax. en fait ANAT du financer ANAT day jàng day jàppale maanaam ANAT maanaam dafay mel ni euh, bureau d'étude buy jàppale gox-goxaan ñu xam. lan fan lañuy jaar pour développer loolu moy rôle lu ANAT en fait ANAT du financer mais amna e ay partenaires au développement comme PNUD xam PNUD moom moo jàpp moo financé euh, étude bi te PNUD tamit yàgg na jàppale communes commune Sandiara mi ngi fi commune Morolan mi ngi fi commune euh, Bargny donc PNUD ñun li ñuy def moy wan ko yoon wi ndax document bi ñuy def document bo xam du pour tay pour tay ak suba ak suba ak ëllëg la donc dañ leen wan euh, fan lañuy ñuy pour suqali réew yi euh, pour suqali euh, gox-goxaan yi léegi bu ñu defee loolu ba pare après PNUD mooy xool par rapport ak ses capacité ci lan lay tàmbalee mën na tàmbalee ci euh, yokku liggéey xale yi mën na tàmbalee si yokku liggéeyu jigéen ñi nga xam ne dinañ yokk seen koom-koom dinañ mën a dem ci kanam mën na tàmbalee ci tamit nu ñuy lëkkalee communes yi muy gouvernance territoriale commune nu ñuy lëkkaloo ngir nekk comment dirais-je jàppalante solidarité communale mën na nekk ci aspect environnement gestion de l'environnement mën na nekk ci accès aux ODD euh, objectif euh, de développement durable mën na nekk fu nekk donc document bi daal mooy document wu day xool fépp du bàyyi dara te da koy xool pour tey pour suba ak pour génération yi xam ne dañuy ñëw ëllëg euh, tey suñu teewaay fii li ko mooy management développement territorial ñu dénk ko étude bi ñu dénk ko cabinet MSA mu def ci gëstu def étude tey nag muy def bilan euh, étude bu mu def ñu koy ñuy jébal résultat yi service technique yi population bi waxtaan ci xool naka lañ koy joyante lii nag dafa tënku euh, ci liggéey bi nga xam ne moom la di def ñu tuddee que territorialisation des ODD maanaam objectif yi nga xam ne objectifu yu mag la Sénégal tënku ci au niveau international naka la ñuy def ba ñu jëmmal ko ci communes yi du gox yeeg gox goxaan loolu moo doon en tout cas liggéey bu ñu def te euh, lii benn la ci muy muy schéma bi ñu ngi def ci wàllu digitalisation numérique euh, wàllu aussi emploi des jeunes partenariat ñu nekk ci ak waa DER euh, di liggéey ci wàllu aussi archivage numérique mais aussi dégg ngeen lu ñuy wax Sénégal service maanaam des espaces yu nga xam ne dafay am plusieurs services yu nga xam ne Euh, dañ Sénégal yi dinañ ci am accès ci département yi ñun dañuy ñëw fexe jëmmal loolu ci biir communes yi euh, ñu tuddee ko espace citoyen ñu ngi ci accompagner commune yi fexe ba euh, au niveau de l'administration ñu accompagner leen ñu am bërëb bu nga xam ne dinañ ko fa mën a def ñu jàppale leen ci équipement mais aussi ci wàllu état civil parce que état civil dangay ngay dégg ñuy wax ne voilà niñ koy archiver baaxul dafay am jafe-jafe bu tawee wala bu lakkee nga ñàkk ko loolu yëpp dañu toll jamono bu nga xam ne xarala yu bees yi am dañuy accompagner communion yooyu ñu def lu ñuy wax euh, voilà euh, ce qu'on appelle euh, l'archivage. bon pas l'archivage numérique voilà fexe ba nga xam état civil bi danañ ko mëna numériser ci xarala yu bees donc lool bok na ci lu ñuy def bok na ci également hmm, walu emploi manam fexe ba ndaw yi ak jigéen ñi am liggéey eh, ci walu xarala yu bees ak aussi wàllu liggéey yu nga xam ne euh, dafa dafa doon xarala yu bees ba nga xam ne koom-koom bi nga xam ne moo nekk ci biir commune bi ñu ñu ñu mën ko exploiter parce que am na étude bu ñu defal benn consultant moo xam ne defal na ko pinut ci wàllu boobu lay yëngu maanaam lii fi nekk ci koom-koom naka la ñuy fexe ba nga xam ne Euh, entrepreneur ñu développé ko mais fexé ba nga xamné ne yi ak jigen ñi ndaw góor ñi ak jigen ñu ñu jappalé leen ba mu ñu taxawal seen entreprise mëna mën liggéey euh, vraiment pour ñu am emploi. wa dañuy gërëm yalla sante ko mais aussi gërëm askanu Morna ci seen kóolute ndax ak gërëm aussi ñepp ñi liggéey ak man ci commune bi dara rawatina nak wa conseil municipal bi ndax conseil municipal Morna juróomi ñaari at ak ngi nii. ñu ngi woote réunion mosul am kër bi mosul manqué loolu wane nañu maanaam seen takkute ak takkute ñuy liggéey ci commune bi moo tax commune Morlan ñu gën ko ràññee par le par programme boo xam ne mooy mu ngi sokkee ko ci kuréel bi ëmb àdduna bi yëpp mooy Nations uni kuréel boobu nag moo tànn na juróomi programme biir Sénégal biir juróomi commune ci juróomi commune yooyu Morlan bokk ci te loolu ci programme yooyu aussi ñuy ñuy def ak ñoom bokk na ci benn tëralin tëralin bu xam ni pour que vraiment nit ñi gën a organiser gën a saytu maanaam seen diiwaan ndax boo xoolee tey ma jox la kaawu dakaar rek tey ñu ngi defar lu ñuy tuddee BRT mais BRT tey pour def ko da ngay toj ay kër mais bu doon amoon naa un ménagement bu yàgg mu prévoir yooyu yëpp coow loolu du am teer bi tamit noon la demee. kii ak ay at ci kanam ay fukki at ay euh, juróom fukki at sax ci kanam ñu def tëralin bu xam ni. ñu xam lu ne fu ñu ko war a def loo tax ñu vraiment ñu ñu ñu def maanaam euh, sem lii ak waa PNUD programme bi nag fan la jóge maanaam waa ANAT am maanaam agence nationale d'aménagement du territoire bokk ci euh, ministère bi ëmb commune yi ñoom ñoo jóg ak waa ministère defal lu ñu tuddee maanaam schéma national d'aménagement du territoire maanaam tëralin Sénégal yëpp maanaam pare nañ ko fu mu nekk nii ñu war a nekk def ay par pàcc par exemple commune bu ne ñu war ko defaral maanaam lu ñuy tuddee aménagement maanaam nu ñu koy organiser nu koy saytoo ba lépp lu mën a am fii ak fukki at juróomi at ci kanam ñu mën ko teg te du am jafe-jafe loolu nag ñu tànn ci ñetti commune muy commune Morlan Ndiafat non commune Morlan Sandiara ak Bargny ci loolu tamit ñu njëkkee ko def Morlan donc loolu lu baax la ci ñun pour que ñun ñu organiser ñu waajal maanaam génération yi di ñëw loolu am na maanaam parce que mënuñoo xaar fii ak ñun xam nañu ni bu ñu nekkee xale dëkk bi mel noonu nii donc ça veut dire que fii ak euh, téeméer at ci kanam wala juróom fukki at ci kanam dëkk bi dina soppeeku soppeeku boobu rek dañ ko war a waajal war ñoo xaar ba mu ñëwee kot ñu ni jon moo tax vraiment ñu ngi rafetlu en tout cas di gërëm waa PNUD ak waa ANAT ci initiative bii vraiment gërëm leen bu baax a baax rawatina nag waa PNUD ndax PNUD mooy boobu mu ngi ñuy gunge ci ay yeneen programme

même euh, atelier sœurs yi sœur immaculée yi donc dañu amoon jafe-jafe ci wàllu machine tey sœurs yi am nañu machine boo xam tey day mooy brodé donc sœurs yi tamit euh, jël euh, maanaam jël nañu ay ndaw surtout jigéen ñu embauché leen ñu ngi liggéey foofu ci atelier boobu financé dañu aussi ay jeunes ay entreprises yu bëri ñu ngi di financé pour que vraiment ñu bañ a yëg maanaam coono Covid bi maanaam feebar bi xew ci àdduna bi donc vraiment plus aussi beneen bi mooy am na lu ñuy lu ñuy def beneen mooy mooy dana par exemple wàllu financer aussi les jeunes en matière de entreprise numérique entreprise euh, numérique maanaam mooy loo xam ne ci wàllu xarala yu bees yi donc entreprise bi ci yooyu la dem dinañu tànn ñaari fukki ndaw je pense que tànn bi commencé na parce que tànn nañu déjà ñeenti fukki yi dinañu def aussi beneen euh, euh, beneen sélection ñu tànn ci ñaari fukk yooyu aussi dañuy am financement dinañu am gunge ci wàllu ordinateur pour que seen liggéey boobu si gën a gëm kanam maanaam lu mat au moins juróom-juróom benn programme mu ngi koy def fii biir ma commune Morlan te vraiment ñun amuñu seen pay amuñu lu dul naa dënk leen yàlla surtout seen njiit yi ak ñi xam ne ñu ngi liggéey ak ñun ñu ngi leen dañu dénk yàlla ndax ku la loolu amoo dara lu nga ñaanal ko yàlla liggéeyam gën a jëm kanam te ñu ñaan yàlla aussi programme yu mel nii ñu fexe ba laal commune yëpp ndax ñun aussi dañoo bëgg maanaam ñun bu ñu tànnee naan yéen yéen yéen yéen yéen war a tàmbali loolu dañ loolu dañoo jàpp ni sas la dañu war a def lépp pour que loolu bu réussir maanaam yeneen communes yi mën ci mët te loolu la ñu nekk moo tax du ñu fooyee mukk programme bi dañuy def lépp pour que lépp lu ñuy def fii biir Morlan wala atelier bi comme ni mu defee dañuy def lépp ba mu réussir vraiment PNUD ñu ngi koy gërëm ñu ngi gërëm aussi anaat mais ñu ngi aussi gërëm euh, cabinet bi def liggéey bi mooy MSA Malick Sow et associé donc vraiment liggéey bi leer na mais terewul liggéey mënul leer ba. kii amul du am jafe-jafe jafe-jafe yooyu nag dañoo nekk di ko wax dinañ ko bind aussi pour que ñoom ñu gën a settantal document bi kayit bi gën a leer parce que commune comme comme Morna lañu tàmbale bii Sénégal yëpp ñu jàpp ni lii bu gën a leer ba yeneen commune yi day day yomb.